Salam salam salam. ni ñep ziar ñep jox ñep seen wacc way joxe sama wal ci ndaw tali mohammed su tour bi reey na de man de rus wu tuddu sa tour bi di ci tek lenen borom ya, ñetti tour yi yow mom ba ngay ya, xass pap suñu grand prat patriote suñu grand tom suñu jambar ji li ko xale lama waxon gi mari Marius ci estocom la ko wax ya. ba all bi na gàññ kenn ñu gungewuñu ñun bi all bi na gàññ pap ale nya mo fa xus taragal yoon bi mo togon jakarlo Marème Faye Sall jàkkaarloog Macky Sall jakarlo felix Thioune Antoine jon ku ñox mu convoqué lelo lu lu la jàkkaarloog xawma general musa Fall Dracula yow boba ya nga sa rundalu yaay tok nga ne yow yaay génn di xass pap ale Niang moo tax gis nga dom yo xamul fu ko ko mu dem ragal fété day xagne nit ki nak da ngay am fo yewé ñu mën la fa tëdd fo fooy ñu mën la fa yewé sama olof bi sax ma riir ndax dama amon dama non duma ci wax nag danaa la jox sama wala ci tal bi gone yow réew nga waye war na la sa danse ya ci nga daas sa borom ñetti tour ya duma yow mom xaw luma la wax borom ñetti tour yi la lay woowee ndax da ngay cucc cucc caj fa ci dess ci am na lo xop ma ñew tuti nak ci sama dom ji na yow tam ba bi na gagne kenn gungewu la pël bu Sonko danga xuus jàll ca xeexu Ousmane Sonko njëkk yi kenn jiitu la ci tiktok bi ci jigéen buy wax mën naa ne de bañ fiy fekkante ñun ñett ñi ñoo fi nekkoon man yow yaayu Fatima yaayu Fatima ñun ñetti jigéen yi ñoo fi amoon fit daan wax tey nag neex na xeex bi jolli na ñu sakkan ta sax dañ ci kontaan ñep welcome ñep gis nga patriote ma may mer ngemb yi gis nga diggante Macky Sall ak Ousmane sonkar warna jox patriote buy nit buy doxee bi rek nga talal sa xel Macky Sall dafa non Ousmane Sonko du ko fi doon tay du ko fi doon ëllëg yalla nako man pare naa koy def mu doon ko tay mu def ko ëllëg pël bu Sonko mo ju génn di wax ci sénégalais yi pour ngeen ubbi seen bët moom mii xale bu fekkee yéen mag ñi doo leen xalaat moom mii xale vision baax muy xool di gis di dégg pël Fuuta yi ñun lan lañ leen def yéen ñi wax ne ci dëkku Europe bi lañuy wax affaire pël Fuuta yi tax ñu leen wax yaa leen saytaane yaa leen naafiq dëkku tubaab yi boo leen fu doxal lu réglé da nga leen di abal seen dëkk ci biti ngeen ne buñ ci wax Sénégal bi ñu wut carte séjour imaam wax na ko keroog imaam wax na ko keroog. Akhenaton imam mu ne 25 ans fu ñu jëmal pël footé, 8 millions lañu pour ñun sénégalais yi doo leen teel a de te doo leen jur. doo leen teel a sëy leen jur ki ne yee 13 ans ñu commencé jur diggante bi ñu dëkkee Sénégal léegi 9 mat nañ fi 8 millions bis bu ñu leen dominé yeneen leen def ne israéliens yi ak Américain. Américain, américains yi indiens yi ñoo moomoon seen dëkk américains yi ñoo leen génne biir en Amérique xeexal ñoom ba génne leen fa takk seen i maam bir Afrique yóbbu leen Amérique noonu jaay ndax leen ëpp leen doole yeen tok leen ba guinéen yi ëpp leen doole ñi ngi leen di won seen bomb dank dank gis nga sénégalais nak gis nga so leen gisee ni ñam am vision bu baax da nga leen di jappalé ngeen bayyi wax sénégalais reuy na lami lu mu jëk ngeen baal ma ñi mako ko sañ wax lu mu jëk ta def njëkku ko xex am ko ko njëkk wax day seet muy damé ay tankam mané la gis na na nak euh, temps yi amna ci ben patriote bus bu soxor sax gis nga pol bu sonko li muy xeex dama lay wax ne seetal sa diggante bo seetee diggante Macky Sall Ousmane Sonko dafa am lu olof di wax kañaan fankhul muur yalla maye benen patriote bi may saña wax nak ma wax lako gis am ñu mën la fa ragal fété day xañu a wërsëg de mais nit ki ngay am fooy tëddee ñu na la fa pëkk pëkk pëkk na la nga juk mais kenn xamu fu teud Sénégal du avancé ndax naa naafiq ak soxor moo ñu tardeel ñun africain yi defuma ko jiitooma ko kenn du ko def ñun man de dama ko wax man man mani Salam man ku ma ci siqal teraanga ku ma ci defut ku ma ci waxut am na ñoo xam ne moom dama ko wax Ousmane Sonko toog na Jomaay toog na Bumajak ma ñom senegal dina len laaj ana man ni dev, ni daram fa lañ xamanté bañ may tek ñu may tok di ma man nyum ñoom lan lañ séq laa leen bëgg laaj ndax la deeng nga moom salam muy wax xamulo ko musoko gis ko iñane kon kon da nga tok rek saaga ko pour fexal soxol man mëno len ma put day down pour fully good pour jëm ma saaga pour tutil ma mëno mëno ko man soxla naa jakk sax bo ma xolé sama ba jakk xamna xam li ma xam nga li ma man li la xam ñak jariñu sëy ak sama dinjite jigéen dangay am dignité man ci loolu laay dox bàyyi leen doomu jàmbur yi pël bu ko li muy xeex xam na ko gis nga nit boo nekkee ci dëkk dangay am dëkk éthique ak déontologique yor vision bu sori Guinée li ñu bëgg a def Sénégal du mu tane dëkk boo fa nekkee dangay am carte séjour di fay ñu nag Guinée yi vingt cinq ans bu leen seetaanee ñu romb ñu fiw jur ba romb ñu bu ñu moytuwulee li israéliens yi def palestiniens yi fa la ñu mujjee ñu bu ñu ko defulee tamit dinañ ko def ci beneen anam ndax ñoom dañoo mystique. marché ti leen boo fa demee sénégalais yi fa doon jaay yëpp guinéen yi génnee nañ leen ci mystique dëkk boo xam ne nag ñii ay mystique nit yu mystique lañ da ngay teel a jàkkaarloog ñoom ndax ko wax ñu jugal la mbaa ñu sànni la kort may leen suñ jàmm pour bu Sonko waxal ci guinéen yi ba mu neex la yenn patriotes yi moom daf ci am ñoo xam ne bës la ñuy wër te xamuñ fi ñu koy jëlee. bëgg bës nag bu mu tax nga yàq xeexu jàmbur am na ñoo xam ne boo waxee ñuy tëb di wax biñ duggee ci xeex bi man ak ñoom dañu mel ne patri activiste yu mag yi yenn may leen cere ji saf na xorom da ngeen jël seen tànk bi di ko fa laaloo may leen ni suñu jàmm xale bi li muy xeex xam na ko te da koy xeex guinéen yi mën na dëkk boo dem da ngay am carte de séjour da fay régler di doxal norme yi di fay. dëkk boo xam ne ci mbedd yi ngeen di toog di fa sawab di fa puub dëkk ci benn néeg bëgg fa jur 15 doom léegi Sénégal yi ñun naka la ñu war a def suñu dëkk te ñoom ñëpp bëgguñu dëkk benn dëkk lu dul Dakar ñoom ñëpp boo leen seetaan yi Guinée yi xam nga biir ville soo ko seetloo ville Sénégalais yi dul bàyyi seen xel yi ngeen di rafetlu ndax yaa ngi ci dëkk tubaab bi ville ku ko nangu seen loxo du libanais yi ville yéen dama leen laaj Sénégalais yi fa dëkk léegi dañu bari du libanais yi biir ville bo len seetaanee li bu yàq guiné yi di leen len guéné biir Dakar ak ma guéné kenn du ci wax pour la man la xoolal maaraw sax ndepp jë tafati leen ma wax bay péré ay don gi va demit fakki mako wax yéen moom mo len nit ñi yow Mouhamed moom mu yow ci yow lay ñëwaat ba tay nga ne Pape Alé ñaar Pape Alé ñaar liñ ko jox da ko mérité gis nga mérite nit a ko koy jox ma waxati mane la kañaan sankul mur yalla maye gis nga nitu su ko yàlla mayee dara nangul koko gen baye bon afrique du développé ndax soxoru nit ku ñuul toba bi ñoyé yee ñu golo ndax diko golo rek lañu yor man mi sax ci laa bokk jikko golo rek lañu yor jikko golo wessul nit ki def la la xamul fiñ ko boté nga yob ko ci ko wala xamuloo nit ki mosoo ko gis tet ñu tax ko tiktok rek nga genn di ko saaga xam golo mo koy def bu timtoomul banana, lek ba suuli caq caqatee seen jikko yu bon yi bàyyi leen ko dang ci gis jeeg bu yur mi tar tar tar ta ta ta amna ko xamne tay boko newon mami salam exact jëmmam nan la mel du ko xam amna ko tok nan mami salam gis wenam yo ngandi sama ween yi ngand yaa ngi de ni la day pata xaw la nak la lulu bis bu ne ma taal nit ñi di ma gis yeen may yeen bàyyi leen ni ngeen nekkee bàyyi leen der nañ seen nak la Afrique di développer ñun nak xam nga lu ñu wara set nak la ñuy def ba bokk ci réew tubaab bi am passeport yoo xam ne dëkk bu ñu soxla dem dañ fay dem maa ngi gis tey ñu jàpp ay xale dóor leen ba ñu bëgg a dee naan ay dëmm yu tuuti mën nañ lekk kenn xanaa ñu leen doon dóor ñooy dëmm yu yi yéen Sénégal ndax nit ñi ñi ngi xalaat xanaa mag yi leen doon dóor ñooy dëmm yi parce que xale yu tuuti yooyu kan lañ mën a lekk seen fit daf leen may sax ñuy lekk ay nit ñun kañ la ñuy nekk nit suñu yëfu rabu àll yi ñuy def kañ lañ koy baal yi kañ la nañ seetaat suñu bopp lii ñaaw na nañ seetaat suñu bopp ñu sénégalais def suñu bopp ay nit te di xalaat lii ñaaw na ku ko waxul doom ko ragal